da kibi masamba mara ko sanci masamba mara masamba mara yo yure mara san bai modu jira kam mbay fanja jira kam ibrahim kaji jira kam pi ki buzra mara buzra ki de ki sanci la bako man mii fi yàlla bàyyi mais Alaaji Omar bokkuma kenn li ma yàlla defal sëñ kaa na ko defal man ku sant yàlla laa ak yonent bi sëñ Tuubaa di sant bokk yëpp na nga ma ñaala sa ñaala dëkk bii Moussa Mar moo jur sa maam Ibra waaw moo ji sama maam Masamba Maar moo ji sama baay ji sama maam man. yaa ngi si ñaata at. man tey jii dem maa ngi ci téeméer at ak fukk ñaar tey téeméer ak fukk ak ñaari at. <laughs> te xel baa ngi fii ba léegi <laughs> <laughs> xel baa fii ba léegi dara dara wul ah maa ngi ba pas Lui secret papa. ah lui c'est secret lan secret. Lui C'est secret. secret bi lan la. secret bi. Ah. ak c'est Cheikh man Tuubaa kilifa yëpp xam nañu ma ñëpp at ku dabbaax mu woo ma dëkk bu ndax jag saaw ci penku pir àll yëpp bi tey ma fan man boole maag doom ji mu yóbbu ma dëgaan pir ma dugg dem Dakar Abdoulaye Thiaw yan loolu ma yéenti fan Thiaw compagnie seen lu muy yëndoog moom ba ngoon ma fanaan kër nuyu naa sama mag waaw waaw kii bind jaam yi def ma bind boole ma sëñ tuwaak seen waaju dimbali ma xam nga ndimbal yàlla dama dimbali ku sant yàlla laa sant yonent bi sant ñëpp dëkk bii nga ñëw bi sa maar ñaanal ñu fi nekk ñëpp taal dafa leen yéen ak ku yokku ak ku taalibe yéen ñii ñëw ba yegg ci fii. bi ngay sanc dëkk bi jafe woon na si yow. bi ngay sànc dëkk dëkk bi jafe woon na si yow. fii fii mu ne. waaw déedéet. jëtti ren moo ma béy foo ma béy. sëñ sëñ Aliou sa moog sa néew bu demee bu ma ñëwee mag bu ma ñëwee jéemul lu màggale ba ci suba dinaa fi ñëw seet si la ñu màggal ba ci suba bu mu jógee jéemul dikk ànd ku ndax sëñ daam fanaan ba set ñu ndékki man quoi ne ah, woon bu ma ñëwee màggalu jéemul barab fekk dëkk bi dëkk naa nekk fee jóge fa nekk fee fee ñeenti taxaw yi fii ma béy ko ñetti bëri mu jóg rek ñu géy mu naa mu ko sëñ jaam dugg mu dugg mu taal oto bi dikk teg loxoom ci kàddu gi ñu war leen ko lépp lañ leen di fekk dëkk bii sëñ Moussa laa ñëw na fi ñetti yoon man sëñ Touba man sëñ sama doom tudde ko boppam moom mais kon yéen ñi ñëw fii ba wax ak yéen wax ji maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal fan gudd ak jokk ku biir tey lan ngeen manqué le tey jii si dëkk bi dëkk bi kër sëñ Tuubaa gii day kër sëñ Tuubaa gii day bëgg naa ko ma ci jàppale si li ma ko may sëñ mu daay sa mais moo tax xeer wi fanweeri mètre carré niir nañ ko ba bala ngaa dem lu loo yàkkamti yàkkamti taxaw ba xool ko suba dem bëgg naa ko ma ci ba kër gi mën a mel ne war mel de ku ma ci jàppale ba kër gi su mel ni war a mel bëgg naa ko de yéen nag yàlla mi bind jaam yi bind leen andi leen fii li ngeen bëgg yàlla leen ko sama borom jàpp leen ak sëñ bi sant nañ leen bu baax gërëm